ko numéro Mama Lamine woo Mama Lamine mu ne ma ah mbaaru booy ba daa mujj gaañu ma ne ko commissaire ang lay woo ci suuf jël ko bi mu ko jëlee ma toog tuuti woowaat ko mu ne ma convoqué nañ ma maa nga police ba fii may wax ak may jóg police laa ko bàyyi woon Mama Lamine ci boppam police ne bu frère bi seexu Mama Lamine moo def loolu seex bi moo jam benn booy ci werante ñu ne nag fii ak indiwu ko moom du génn ba 14 heures ma nga police fa ko bàyyi bu doon ci suba teel lañ ko teel a bàyyi sax mën nga delloo siwaat mën a concentré ci combat mais fi ñu gën a xamee ne nag moom du mën a bëre papaay xale bi daf ñu fekk police ànd ak ay magam ak rakam ba mu ñëwee xam nga lu mu wax yéen a tal làmb waaye man taluma làmb sama doom ji dee tal te ñoom ñoomu nee na non su boobaa sa xel day ne ci leneen lu dul làmb Mama Lamine police laa ko bàyyi moment bi war na fekk ci préparation ma woo may sa ne ko nañ avertir garga de mu bañ a ñëw ñu maintenir neuf combats yi au moins ñu sauvegarder xaalisu promoteur bi mais bi mu woowee président baabu daf ko ne garga de ngemb na mi ngi ñëw loolu loo ci man mais ma Lamine ku ci ne da koy làmb ci bu doon sa bopp bu doon yow la ndax kii lii dal ay dëkkandoo lañ kii lii dal day supporter Mama Lamine ndax ndax buntu këram la toog ba histoire am fa. gaañu ci koñ bi la dëkk. ki benn lañu kër Bamba Lamine lay ñëw. ma yow xam nga xale yi niñ mel. ku bokkul seen staff bu ñuy waajal combat doo fa jege. ñoom ñoo werante ci seen biir incident am fa. kooku di nga xalaat ngeen mu naan yaa ngi tuus ak yaa ngi bàkku yaa ngi bëre loolu làmb jaru ko xanaa boo ñibbee sax àdduna génn ci yow. mais man au moins doon naa bàyyi xel promoteur bi na ko wool CNG boo wooyee la CNG de lutte xëy na ñëw wax garga de ne ko cas de force majeure lii moo xew moom mu bañ a ngeen mu ñëw. aw ñoom avant bi ñuy woo ménage nee na garga da ngemb na bay ñëw kon xalaat naa ne bu ñëwee day ñëw ñu yëkkati loxoom ñu forfait mais boobu defet ñun tey même bu ñu amoon ndam sax noonu ñibbi bi day métti ci ñun ndax la ñuy fekk ca kër ga nee naa papaay xale bi mu ñëwee police suñu yaram yëpp la dawloo nee na yéen a tal génne Mama Lamine mi ngi téye fii waa ñun ñun suñ doom ji dee lañ tal loolu nag beneen affaire la quoi mais maama bu bëriwut xam na li ci règlement bi lan la ko parce que du cas de force majeure déggoo li cas de force majeure bu la police jàppee mënuloo dem cas de force majeure la même bu nekku seen texte nañ ko ci dugal ndax fee mu teg téyewu fa boppam waaw te ñoom xam nañ loolu parce que kon duñu woo baabu ne ko pour ñu xam ne lii moo dal da ci am loo xamante même boo néewul ca texte da nga xam ne xel nangu ko werante werante de puusal nii duma puus nii xëy na parce que si ta bi mu xëyee xale bi gaañu la estati te man nga ba xaaju guddi ñoomu nee na ñoom dañu mer sax ci li am ndax seen booy la. kon gaañu gi du tey biig ci guddi la. biig man fajar la ma commissaire woo wax ma ko pour man buñ ko teelee bàyyi dinañ concentré comme mais ba 14 heures Mama Lamine ñu téye police imaginel ko war même mais boobu bu teeloon a génn sax danañ commencé ne ci combat bi. Mm-hmm. mais moment booba sax bi ñu victime bi ñim dal nag bi ñëwee police non safara lañ fa andi. police ne man nañ garder Mama Lamine ndax am na seen benn frère xaw ma bu gàddu jaasi di wër seexu Mama Lamine bi. moo tax même ñun ñu garder ko fii pour raison de sécurité sax moo gën ndax ginnaaw bu ñooy ay dëkkandoo lañ làmb c'est bien beau nga dem bëri ji. mais da ci am loo xam ne xel nanguwu ko. Ah, xel nanguwu ko xel nanguwu ko. mais mais père dugg ndax maama fi ñu toog la xale yi naan ko erreur la mais lépp ba mu des bëri ji. erreur la ba mu des bëri ji. waaw mais mais lan moo ko ci mën a fekk. parce que tamit est-ce que téye licence am mënu ko cee fekk téye reliquat am parce que magam gaañuwut baayam gaañuwut yàlla tere. yaayam gaañuwut ñooñu waxuñu ay reliquat yaa wax reliquat bu doon cent millions mën nañ koo muñ liñ ñàkk moo ëpp doole loolu man c'était juste pour sauver le promoteur ñu téye xaalis bi adversaire am it nee na waaj na ba jog kooku am na ci droit mais dama ne ñu du ay téye xaalis ki licence ki bu doon suñ coobare contrat bi dañuy tàggoog moom dem witi leneen ndax yàgg na mais dogal bi suñ borom a ko yor li yee soob suñu borom mais ci cadre CNG daan du ci am wala aj ah gaw ma ko non gaw ma ko Mama Lamine du coobareem ndax nit mënoo koo convoqué mo bu doon Mama Lamine moo fa téye boppam mu bañ ne bëriwul ku ne xam ne du coobareem mais làmb dafa am heure dafa am waxtu mm-hmm. waaw mënoo ñëw bëgg a bëri ji 14 heures fekk la nga ne ci nga ne nga ne ci ay loxo maama Lamine fa mu ne téye fi boppam waaw. lan ngay ñaax xale yi doole ci li nga leen doon ñaax. non ñu defaraat toogaay rek. surtout defaraat toogaay yi defaraat toogaay yi jot na am na kuñ fa gaañ fële bakkan yi wadd bëri na. Euh, xale yi nañ defaraat toogaay yi. beneen waxuma ko sax pour làmb ñi ñuy jël seen bakkan bëri na beneen bi message la bu ma doon lancé jotewuma dara ak yenn film yi ñuy teg ci tele bi mais buñ demee ba ay nit ñu ñuul jël fetal naan dama lay rey di la torturer xale yi dañ defee ne dëgg la parce que bi mu am ci film tubaab bi nasaraan la ñuy làkk wala anglais xëy na te xale yi lu mu gis day defee ne looloy dëgg buñ gënee mën a defaraat toogaay ba pare woy jur yi sàmmaat xale yi ñu amaat jomb-jomb rus naa def lii wala du ma def lii même ki rey tey du ne ci jàmm ndax dañ la téye foo xamante ne nii ci réccu rek ngay dëkk boo fa bëggee téye at waxuma nag ñi ñàkk seen bakkan dem mais daal li ma bëgg waxaat mooy nañ defaraat jikko yi encadré waat xale yi ndax bu doon ku dee mu jeex dee noflaay lay doon mais après dee dafa may ay conséquences looloo tax loo war a def nga war koo seetaat nag du ko dee mu jeex de. déedéet après dee dafa après dee dafa am ay conséquences looloo war tax ñu defaraat toogaay yi nag mais réew mi violence bi bëri na te jaaduwul nag jërëjëf. jërëjëf